aywa da nga bëgg ay xibaar yu wér te wóor xibaar yu leer nañ doxantul gaaw nga def www point allo sénégal point com hashtag liste parrainage Ousmane Sonko Macky Sall jërë ngeen jëf mbokk yi ngeen gis ko noonu muy ñëw sunu xel dal yóbbu ñu si maamam ja Serigne Saliou Mbacké jox leen ma ndaw ñi ma def si ñoom la Serigne Touba daan def ca mag ña loolu di ay kàddu yu fi Serigne Saliou bawoon te turandoowam bii di sët ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacké di jëfe saasu su ne alxuraan la xam ndax bu waxee nga dégg ko waaye bu ne pat noppi nga yëg ko kéemaanu àdduna dëgg mooy jëmm ji bala nga ko xam nga toog ak moom ba tiis ko say problème di nga xam ni solution buñ koy wax jëm jëmmam moo ko waral ak sëriñ bi dinañ waxtaan jëm ci li nga xamante ni mooy tolluwaay réew mi sëriñ Moustapha si yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci boppam ci élection yi nga xamante ne nii 2024 lañ ko dëgmal te nga xamante ne nii sénégalais yëpp ñu ngi ko koy teg comme candidature am bii nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee moom nee na jotagul bu jotee dina ci wax. gàmm gi décidé woon nañ fekk ko ci tàntam ay fitel ak ay lacrymogène waaye préparé woon na loolu lépp bu baax ba dalu ci kawam. liste parrainage yi rejeté nañ liste yu baree baree baree baree waa DGE ñoo ko def liste Sonko rejeté nañ ko ak mboolem ñi nga xamante ne nii rek déposé woon nañ pour bokk ci jongante bi nga xamante ne nii mooy am 2024 incha allah waaye Guy Marius nee na moom Ousmane Sonko mooy benn candidat bi Pastef teg amul plan B émigration clandestine ba léegi ñu ngi wéy di di gis ay dee ci biir géej gi pexe lan la ci ak sëriñ bi dinañ ci waxtaan waaye tamit dinañ jeexal suñu kàddu yi waxtaan ci li nga xamante ne nii mooy làmb ji Modou Lo Ama Baldé dëgmalati nañ ko saa su ne nag dañuy gis ni day am ay jafe-jafe buñ ci jublee waaye ak sëriñ bi dinañ ci wax incha allah sëriñ Saliou Mbacké dañ koy bàyyi rek moom sëriñ bi mu nuyu mbokki internaute Allô Sénégal yi ñuy seetaan sëriñ bi kàddu gàngoog aouzu billahi min asheytaan rajim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi mu sante yàlla mi nga xam ne mooy kilifa ak ñëpp di ko dellu sant moom mi nga xam ne moo tawfiix ak ñëpp di ko sant moom mi nga xam ne tamit moo may ñëpp ak lépp lu wàcc doomu aadama moom la di nuyu suñ mbokk suñ mbokki réew mi di nuyu suñ kilifa diine yi ak suñ kilifa aada yi di nuyu itam waa bitim réew di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen feete ginnaaw suñ borom génn leen foofu bañ dellu seen njaboot da leen fa dugal buñ fa di ñaanal itam ñi nga xam ne ñoo ci loolu hôpital yi suñ borom fëgg seen bopp bañ dellu seen njaboot bisimilah. bisimilah sëñ bi sunu njëlbeenu waxtaan dañ koy tàmbali ci li nga xamante nii mën nañ jàpp mën nañ ko jàppe ni mooy caabi ji sànq bu ñuy dugg sa kër fëgg nañ bunt bi parce que loolu moo jaadu ci say mbir gis nañ à chaque fois da ngay fëgg bunt bi seet ba noppi sëñ bi dañuy jàllale dugg ci li nga xamante ne nii mooy wàllum seet. néew ma lu ma di suñ li ma suñ borom may mayu ko kenn ndax suñ borom moom lam yor da koy maye te ku képp kuy maye yaay xool kala nga may ko kon du ma ne lam ma si may mayu ko kenn mhm. waaye li nga xam ne sañ naa ko wax mooy képp koo xam ne suñ borom dogal na ne eh, wax nga ñu lañ lay seetale ñu seetal la incha allahu rabbi eh, doo ko rëccu te di nga xam ne lañ la wax dëgg góor péng la nit nag soo mënul dara da nga naan mënuma waaye bul ne lii amul ndax alxuraan ji am na ñoo xam ne boo ne lan moo nekk ci kaam bi dañ naan la xamuñu ko te pourtant man mi ngi ko xam boo ma laajee lan moo nekk ci dama naan la wax yàlla alxuraanu karim la lépp loo xam ne suñu borom bind na ko si kaw ak suuf si jéeri jéeg lu mu mënti doon bu ñu nee asamaan suuf tënk na lépp lépp a ngi ci kaamil bii tey boo demoon si science tey xam-xamu daanaka lépp loo xam ne science tax indi na ko mi ngi si kaamil bii kon doomu aadama du ne mënu dara doomu aadama du ne du ne dara amul ndax uh, loxo bii tey uh, man nga ay nangam milliards nit ñoo si nekk nangam milliards nit nekk si àdduna bi waaye kenn ku ne yaag sa suñ borom def na ko noo xam ne kenn ku ne la nekk sa yow nekkul sa morom kon am na loo xam ne muy seet seet façon seet yëpp am am na ñoo xam dañuy seete si ndox mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy seet seetu seetu mbind xaatim am na ñoo xam dañuy seete si seetu am na ñoo xam dañuy jàkkaarloo sa kanam sa xar kanam seet seetal la am na ñoo xam da ngay wax seen sa turu nday ak turu bàyyi nga seetal leen mm-hmm. am na ñoo xam ne boo leen seetal boo leen seetal doo leen gis am na mm-hmm. ñoo xam pour nga gis leen faaw nga les xaar doog leen gis kon nit ki du ne mukk munuma danaan munuma lii waaye lii amul kenn du ko wax ndax suñ borom amul lu asaar man de yàlla xam na ne alxuraan laa téye lii du ma ko caaxaanee. soo su ma la su ma laa fetal sa loxo bi. nga envoyé ma ko yàlla xam ne lu ma la wax di dee koy dindi. wallaahi nit nag kenn du ne nangam amul nangam amul. ndax même ñi may seetaan. xam nañ ne suñu borom lépp lu mu def. si doomu aadama ñàkk ñàkk ñàkk ba àgg fa la waaye boo gësoo àgg fa boo gësoo nga àgg fa te maanaam dafa am loo xam ne euh, ñun ñi nga xam ne dañuy wax war nañu bàyyi xel loola. ndax ñun ñi nga xam ne dañuy wax si micro yi nii war nañu bàyyi xel loola ndax nit ki bu dee boo waxee ñëpp déglu la am na loo xam ne boo ko dee wax da nga koo war a xool sa diggante yàlla te bis boo tëbtee wax ko rek mën naa jur leneen waaw. am na loo maanaam lii amul kenn du ko wax ah man boog du ma lii amul gisaguma ko laay wax wala xawuma ko xawuma ko ku nekk am nga sañ sañu wax. gisuma ko ku nekk am nga sañ sañu wax waaye bu ñu dëpp micro rek ngaan nangam amut di waat yooyu yooyu amul solo ndax ñun ñëpp. kenn ku ne xamante nañ waaw nit nag boo xamanteeg moom baax a baax euh, lu ñuy def rek dañ koy def si xam-xam waaw man man coolee fi nekk nii rek waaye am na ñu bëree bëri bu ñu ma yebee wala ñuy maanaam wala ñuy wax ak man daan daanante la waaye xam nañ bu baax a baax ñi nga xam ne dañuy dañuy wax ci wax ne rek wax lii dañ bàyyi yooyu ñu nekkuñu si milieu showbiz si si nekkuñu si foo xam ne dañ koy def ngir ngir wut bës ak yooyu dañuy def dañoo nekk si milieu boo xam ne dañuy dimbali jaamu yàlla yi képp koo xam ne da ngay dimbali jaamu yàlla nag da ngay xool sa diggante yàlla ngir bañ a xool ay vie yooyu amul solo ndax yooyu yëpp day jàll te loo fi wax tey ay téeméeri at mën nañ la ko tegalaat na yaa wax nangam kon nañu nañu nañu nañu nañu sàmm wax yi di xoolaat wax yi te xam ne seet suñ borom moo koy def si nit boo ko defee si nit nu ñëwee ma seetal la man man nga maa jox sa turu baay jox ma sa turu yaay yàlla xam na ne su ma la wooyee ne la ñaata nga am lu ma bëgg xam ci yow wax wax la ko billaahi wallaahi su ma la boo ma wooyee ma ne loo bëgg ma wax la ko ci yow ma wax la ko su ma la wooyee ne la jox ma sa turu baay kese loo ma bëgg wax ci yow wax la ko dafa am lu wax suñu moo koy may nit yonente bi suñu borom moo ko may mu nekk ngeen gi mbindeef ak yeneen ak yeneen yoo xam ne alxuraan ji suñ képp ku mokkal suñu borom moo lay may mu nekk sa bopp bi ndax lii xajut ci bopp xaj kon nag am na loo xëy moom foofu mbirum seet foofu la ñu daggee waxtaani foofu daal ndax am na boo ko dee wax rek bu yàggee mën naa mën naa jur leneen. macha allah sëriñ si yéen laay waxal bàyyi leen di fëgg seen dënn naan mën ngeen mën mën mën ñi mën dëgg dañ naan pat noppi sëriñ bi damay xuus dem ci li nga xamante ne nii mooy ndomba tawféex gi ñun de am nañ tawféex bañ la xamee ba léegi ndax ndomba gi moo waral loolu tuul ak lépp sëñ bi ñu ngi koy gis ci li nga xamante ne nii mooy ndombal tawféex li tawféex nag wuy na turam sëñ waaw ndomba gi ndomba ak tawféex la te képp koo xam ne suñu borom dogal na ne jot nga si xam nga ne ndomba gi duy ndomba ak caaxaan te fowuñu fowlawuñu ndax ndomba gi nolal nolal mag la hmm? nolal mag nag dafa ah. am loo xam ne xale du ko fooyee te am na nu ko olof di léebee waaye léebu olof du ko faral di wax ndax man lu ma bëgg di wax damay bëgg mu nekk alxuraan ak sunna moo tax du faral di it jëfandikoo ay olof nee na nangam nangam waaye euh, da nga leen euh, si bayu tef xel xajul ci béyu taf loolu boo ko déggee nag mooy ndomba gi ndomba gi cool yi bëri na yàlla xam na ne ndomba gi li ma si li ma si defar li ma si defar kenn xamu nu mu toll waaye dafa am limitation chaque weer weer wu nekk dafa am loo xam moom laay defar ndax li liggéey bi dafa jafe ndomba gi nag dafa am juróom-ñaari pitaaw la si biir juróom-ñaari pitaaw yi pitaaw bu nekk dafa hmm. ànd ak gawam ah. pitaaw bu si nekk dafa ànd ak gawam bu jàmm di am dama koy faral di wax dafa am noo koy doxalee bu safaanu amee tamit dafa am noo koy doxalee kii boo nekkoon ci bërëb ñëpp di la eh, xeex. Hmm. yàlla xam na ne boo takkee ndomb gi mucc si. dafa ànd ak tulu paaka tulu fital te lépp loo tëju boo takkee ndomb gi suñu wax da lay may te boo ñàkkee bayra ba kenn xamul looy nurool soo ko takkee am bayra te ndomba gi dafa am lu baree bare baree bare lu si laxas loo xam ne kenn mënu ko wax ndax am na loo xam ne boo ko waxee dafa am xale yoo xam ne euh, faaw ñuy sóoraale ñooña te man samay wax yu baree bari xale yi lay xaw a sóoraale ndax am na xamuñu te buñ déggee yooyu rek dañuy jéem fexe ba am si te li ma gën bañ mooy comme li am li tax dama may xool ñi ma koy jox mooy dafa xale yoo xam ne dañuy jël ndomba yi samay ndomba yi yoo xam ne ndomba yi tawfeex la ñu koy jël ci man di nekk ci mbedd mi di jam di jamoog yooyu loolu nag moo tax jamono jii may wax yow vraiment fas yéene du ma ko joxati xale waaw du ma ko joxati xale ndax dafa am bëri bëri na xale yoo xam ne ñu koy jël si sama man dem si mbedd yi di jamoo ay seen kii ak yooyu yooyu nag mooy waral léegi nag am na ñoo xam ne ñaan doom ak sëñ tawféex la jox ba koy dégg lu bëree bëri mm. moo ku mën doon bu dee nga amoo lu mat ñett jëm suuf wala ñaar fukki at jëm ko jox koo mën doon te damay xam ne baax ba xam ne mën naa la ko jox ma jox la ko ndax ndomba gi li si lax su dafa bëri mm. xale yi nag tul gi rek la gis di ko di te tul gi moo gën a tuuti si ndaw ndomba gi waaw tul paak fital moo gën a tuuti si ndomba gi dafa rax sa ko laxasoo ubbeeku laxasoo kaaraange xam nga tawféex moo ëmb lépp. tawféex moo ëmb moo ëmb lépp. moo tax ndomba gi am na loo xam ne daal kenn du ko wax waaye képp koo xam ne jëf soxla études yi am nga bëgg-bëgg ci ndomba gi soo ñu woowee dana na si leeral yeneen yoo xam ne kenn du ko leeral si si kaw. macha allah mais sëñ bi ndomba gi tey bu may wax dama naan tey Europe tey Europe sénégalais yi nga xamante ne mooy doomu réew ña fay nekk ñu ngi dund ay jafe-jafe tey Europe est-ce la arrivé tey ngay am ay commande foofu noonu di leen ko envoyé. waaw ndomba gi li tax ma gën koo li tax sax euh, ma gën seen liggéey mu nekk juróom-ñaari gaaw yi. mooy dafa am Europe ñoo xam ne dañuy jaay si mbedd yi. lu demee nekk ay forot ak yooyu ak lal si mbedd yeeg yooyu. te dañuy bëgg a euh, jaxas euh, juwaloog policier ak yooyu. gis nga kii boo ko takkoon tey. wallaahi bu policier waree ñëw fii da ngay déplacé bu nopp mu doog a ñëw. boo ko takkoon tey bu boo dee def lu boo dee jaay farot ko waxuma nag jaay naka su noonu comme farot yu sew saan yi euh, ñooñu moom dama leen koy jox waaye am na loo xam ne boo ko def ko jox ndax sama lay xool euh, soo dee jaay sa bu police war a ñëw dangay ngay déplacé bu nopp dañu naan la euh, nangam ndox mi dafa am juwaloo maanaam juwaloo lépp lu war loo loo def dangay dem ba àgg ñu doog a wax loola wala ñu naan la eh, nangam di amoon na fi lu bare bëri te lii lii dem si Europe yàlla xam ne ne bu dee téeméeri commande laa am quatre vingt yëpp Europe la jëm yàlla xam na ko ndax ndax Sénégal dafa am loo xam ne moo tax du ma ko bëgg di joxe fii ndax dafa am ay xale yoo xam ne dañuy dañ siy fo te man sama alal bëgguma ko siy fo du sama alal sax alalu alalu askan wi la waaye bëgguma ko siy fo loolooy. macha allah dañuy xuus dem ci leneen kattan moom ci réew mi yaakaar naa koo ci mënul mënul la ci. néew kàttan gone yaa ngi koy jooy lu bare baree baree bari waaye bañ la gisee sa jëmm ji rek lañu am saafara ci ndaw kat euh, euh, li nga xamante ne mooy néew kàttan sëñ bi fas gi boo ñu ciy dikkal tey. waaw bu dee néew kàttan de xam nga tey bu ñëwee sëñ Saliou Mbacke kan mooy sa kan mooy sa waajur ñu ne euh, sëñ Baara ñu ne kuy kuy kuy waajuram ñu ne sëñ Sidi Mokhtar kuy waajuram sëñ Baara kuy waajuram sëñ Touba boo xooy boo waxee si nit ñaanal ko si ndox jox ko aajoom faju waaye bi. dafa xeeb maanaam dafa am loo xam ne da ko def si ñun ndax xamoon na tolluwaayu jamono fi mu jëm moo tax euh, keroog bi ñu amee lu ñu ko defal mooy tolloon si mu jàng mhm. am luñ ko bindal jox ko ko lo keroog ba bañ noppee si la ñu wàcc yëkkati fas gi jox yëkkati ay secret jox ñu la ñu jox nag kàggu la kàggu nag du ndonal du ndonal xale kàggu du ndonal du yëfi xale yëfi mag la man damay faral di wax ne fa mag ñi tolloon daan jëf toll naa fa wala ma toll fu ko raw tey nu mag ñi daan def tolloon fa daan def toll naa fa jamono ji ñuy wax yow gis nga fas gi li si gën a néew yàlla xam na ne mooy néew kàttan fas gi li gën a néew ci fas gi li muy faj mooy néew kàttan bu sa awra laxee boo takkee fas day dëgëral awra bu sa awra nooyee boo takkee fas gi day dëgëral awra boo gaawee àgg eh, suñu borom dina si dimbali da koy dindi bu dee bu dee bu dee sa awra dafa dafa gaaw a dugg du si dimbali bu dee sa awra dafa nooy du si dimbali booy da nga am jafe-jafe tànk soo takkee namba gi dala si dimbali boo takkee fas gi dala si dimbali bu dee am jafe-jafe boo takkee fas gi dala si dimbali fas gi fas gu kiimaan la du caagi ne da ngay jël ay buum rek takk ndax bu nekkoon ay caaxaan ba tey yaakaar naa kon du ma wax di wax fas gi te li may faral di wax suñ ko joxee jur ñetti nit ñetti nit ñëpp ñoo ne ma sëñ bi gisuma la nga yoona sa fas bi war naa ko ci yàlla ma bàyyi ko te fas gi fu wéer wéer lañ ko teg ndax du yëfi xale yëfi mag la fas gi yëfi mag la te yëfi mag xale du ko fooyee mm-hmm. te te jamono ji dafa am ñoo xam ne dañuy jëfandikoo ay sunguf yoo sunguf yoo xam ne wala dañuy jël ay comprimé tubaab yi di ko dëbb di ko jox ay nit la te boobaa mën na leen indi jafe yoo xam ne duñ xam nuñ koy waxee mm-hmm. léegi nag moo tax ñun ëpp lu ñuy def si mbirum kàttan fas gi lay doon fas gi nag kenn sangu fas gi moom da takk ñu wax la app bi ngay jox nga tàmbalee ci sa bopp te tudd nañ ñu si doom def nañ ci lépp fas gi daal am na loo xam ne kenn du ko wax. waaye fas gi lan lay bañ sëñ bi. fas gi may bañ mooy toog si gën. waaw toog ci gën lay bañ. waaw toog si gën daal laa xam ne boo ko defee. mënatuma ko garanti waaye lu bëgg lu weesu toog si gën. moom fas gi moom macha allah. macha allah dañuy dugg nag ci leen loo xamante ne nii moom man dama ko doon xaar tey. muy ñetti càngat yi sëñ bi ñetti càngat yi nag boo ko waxee mu jox la triangle waaye du fa ñetti càngat yi sëñ bi maa ngi gis ubbeeku maa ngi gis tamit jigéen gu taxaw waaye maa ngi gis tamit càngatu millionnaire sëñ bi càngat tey yàlla dala ci may ba nga xamante ni danga dem ba ñett ci càngat. xam nga bu dee am na càngat goo xam ne mooy bi nga bi may njëkk a wane noonu. waaw boobu càngatu ubbeeku wax ku doy waar la ak falu. tey boo boo suufee woon ba mel ne la ma gën a xam. soo ko takkee soo ko defee ñeent fukki guddi. wallaahi ñu joow la. te nit ki bala nga day fekk yow ma koy wax nga ubbeeku waaw ndax nit ki mënoo nekku dama lay may dama lay defal loo xam ne da ngay yor xaalis te yow ma koy wax moo la tane xam na waxee ni nit ñi ñoo war a am seen xel maanaam nit ki bala nga ko dimbali si ubbeeku day fekk yow nga ubbeeku ba noppi man noonu laay doxee te maanaam uh, suñ borom mi may teral te képp koo yaakaar ne sa alal laay dundee tee ko wallaahi te képp koo yaakaar ne sa weexa laay dundee tee ko man damaa yor ay daara di bay di liggéey yor ay donga te su ma toogoon doxee sama barke maam bi lu ma bëgg si àdduna man na ma ko fajal kuy sa ku jur ku sa baay sëñ Sidi Moxtaar kuy baayam sëñ Baara kuy baayam sëñ Tuubaa kooku doy doy na sëkk si kubbeeku te bàkkuwuma waaye dafa nekk loo xam ne il faut ñu leeral di wax léeg-léeg fañ bokk ndax yonent bi di suñu soxla si waxoon rek ci alxal wax yonent bi dafa toll jamono boo xam ne bi mu ne man maay doomi doomi bi nekkoon fi daan nangam nit ñi tam li ko xeeb ma dafa wax maamam tagg boppam bañ xam ne kii fam bokk ñaari yëpp bokk fu nekk bokk na fa kon man léeg-léeg nit ki da ngay toll foo xam ne il faut que da ngay wax sa bopp xam la yaakaar ndax ngay xam la yaakaar nit a wan li muy li muy saafara mooy nit koo xam ne dafa tëju ñàkk ba mel ne li ma gën a xam soo ko sangoo ñeent fukk guddi balaa yàgg di gis sa bopp ak ubbeeku gu doy waar doy waar doy waar doy waar dafa am sangat dafa dañ dafa am nag euh, luñ koy jëlee buñ ko jëlee dañ koy bind ci àlliwo ji léegi buñ ko bindee si àll dañ koy raxas bu ñu ko raxasee jox la nga boole wax sangat yi ñeen fi ko guddi suñu borom defal la tawféex alluwa yi noonu ji ndax alluwa ji dafa am ay kilifa yu baree baree bari si lañ dal jàng yu baree bari mën naa la mën naa la limal ay xam ne kilifa bari si lañ dal jàng man mii di wax ak yow si laa dal jàng naa limal lim lim ay maam maam maam maam alluwa ji eh, dafa am loo xam ne tax ma jot si mooy si kàggu gi la nekkoon waaw kàggu la nekkoon te alluwa ji maanaam boo gisee xam ne du alluwa jëndee si marché ba alluwa ji boo gisee xam ne yàgg nañu koo raxas te boo gisee tam xam ne ay at la am ñi xam alluwa laay wax nag waxuma ñi xamul alluwa maanaam la ma bëgg a wax mooy sunguf si dañ koy dañuy jël am nañu jël bind ko si alluwa raxas ko bu ko raxasee jox nga sangoo ko boo ko sangoo ñeent fu guddi suñu borom tàll la bu dee beneen xaatim maanaam di xëccoo dara wala nga bëgg a nekk kilifa wala nga nekk loo bëgg a nekk. soo ko sangoo fukki fan ak juróom-ñett. lépp loo yootu lu mu mënti doon di nga sa jot. wallaahi lu mu mënti doon fukki fan ak juróom-ñett lu mu mënti doon di nga sa jot moom bee moom mee eh, ñu ngi bind juróom-ñaari fan. juróom-ñaari fan lañ koy bind moom beneen bis su ubbitiku bu njëkk bi kooku mi ngi nekk Faatiha ñu am lu ko tënkee uh-huh. la ma xam ne jaaxatin digg maanaam Faatiha lañ tënkee benn baat am nañu si def noonu bu dee bële hmm? ñu ngi ko tënkee ak Yaasin yaasin yaasin lañ ko lañ jël def ko si mi tañ ko noonu moom fukki fan ak juróom-ñett boo leen boo xëccoo ay marché milliard wallahi boo ko sangoo di 17 jours nga gis ko boo yoroon sa suuf munoo ko di jaay mënoo jaay boo ko sangoo jëfandikoo def li ñuy wax nga def ko bala moo jar ñu ne la am boo doon xëccoo wala nga ñu lay toroxal wala lu mu mën doon boo ko sangoo suñu borom di génn la si bu dee nag euh, bii nii dafa am lu mu àndal moom tamit moom waaw cangat la moom sunguf lay àndal léegi bu ñu la ko joxee da koy jël boo ko boo ko jëlee mi ngi nii mi ngi nii moom bu ñu la ko joxee da koy jël boo ko jëlee ndax dama koy bañ a leeral nit gis ko bu baax da nga koy jël soo ko jëlee dañ la ko jox am xaati bu ñu ko booleel am xaatim la dañ day sungu suñ ko boole bu ñu la ko joxee nga naan ko balaa man ñeent fukk dee loo xam ne duñ ko jox ñëpp waaw ndax bala sunguf sunguf si muy àndal man maa ko bañ a def kii sunguf saa ngi nii sunguf si mi ngi nii moom lay àndal sunguf si euh, da nga koy jël boo ko jëlee am nañu ko booleel moom tamit bind ko si àlluwa jox la nga raxas ko leen li sangoo leen li balaa man ñeent fukk guddi suñu bam dogal nga nga nga am tuut tànk bu soob yàlla waaw bu dee bii bu dee bii jigéen koo xam ne dafa taw am so jëkkër moom dañ la koy jox nga sangat ko sangatu juróom-ñaari fan la soo ko sang juróom-ñaar ñaari fan hmm? da ngay toog balaa mat balaa mat fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñeent di nga gis ay nit ñu bari yow nag yaay xool boobaa ku la si gënal waaye duñ ko jox mukk kuy kuy kuy kuy caaxaan waaw waaw maanaam bu dee bu dee bii nag bis am na boo xam ne bii nii mooy pour pour nopp la nopp maanaam waaw pour nopp maanaam pour nopp maanaam euh, da ngay gis koo xam ne da ngay gis jigéen góor goo xam ne euh, soxnaam da koy da koy sonal lool mu ragal ko lool du jàpp mu soxna si jàpp ko di ko dóor guddeeg bëccëg loolu la yooyu yëpp ay xeetu noob la wala nga gis jigéen koo xam ne lu mu laaj jëkkër mu jox ko loolu lépp xeetu noob la ñun nag bu ñëwee ñaari ñoo xam ne suñu borom moo leen boole wala kenn ba yaakaar koo takk boo ñu waxee noobu 48 heures 48 heures lañ la jox barke sëñ Tuubaa 48 heures lay jox te nag képp ku ma koy defal damay wóor na kii hmm. yéen ñaar doo leen bàyyante hmm. ndax noob gi moom bu ñu ko xasee ba def dee rek moo leen tàqale boo day la nga gis jigéen ñoo xam ne seen seen borom kër day toog lu man ñaari weer at ñaari at duñ ko gis da ngay gis jigéen ñoo xam ne seen borom day seen borom seen borom kër day toog lu mat fukki at duñ ko gis nga gis jigéen ñoo xam ne dañuy toog seen borom kër day toog lu mat ay weer wala mu leen daan lépp jekk-jekk bàyyi leen yooyu yëpp nag bu suñu borom dogalee ñu déggante kooka saafara saafaram kii jàngoroom jeex na jeex na tàkk te tamit duñ teg nit ki mukk mukk lu mu amul te waat naa ko ci alxuraan képp koo xam ne woo nga ñu xaalis nar a tax suñu diggante ñu nag yow du am yàlla boo ñu woo te képp koo xam ne woo nga ñu sa aajo nar a yàlla boo ñu jot loolu moom dama koy ñaan suñu borom fu ma toll waaw. macha allah sëñ bi dañuy tëj émission bi ci lenn rek mooy wàllum rab parce que gis nañ ne nag guddi yuñ toll ak yàqu-yàqule lu ñuy wax ci yàqu-yàqule rab sabab bi bokk na ci parce que ñenn ñi ndax ñu ngi koy dëppalee Guinée mais tey jigéen bu toog amul borom kër wala tamit góor boo xamante ni mënta am soxna ñuy fowee seen bopp loolu lépp mi ngi koy teg ci li nga xamante ni mooy rab rab dafa mel ni yàqu-yàqu yi muy def ci réew mi bari na. waaw bu góor guy fowee boppam ñun ñu koy wax rab loolu tooñ rab la waaw to maanaam rab amu fa nit kee nit kee yàq boppam xam nga suñ borom dafa am nu mu bindee doomu aadama maanaam lenn lu si nekk dafa am doomu aadama suñ borom bindu rab waaw loolu moom ñaankat yëpp sañ na si ñooñ loola bindu rab xam na ne alxuraan la lii alxuraan la suñ borom bindu rab wa maa xalaqatul jinne wala insi ilaa liya'budu la wax jinne ak malaaka ak doomu aadama la la loolu moom suñ borom moo ko wax man waxuma ko sa olof nag mooy def bu gisee lu xamut ne eh kii comme rab kii rab la hmm. wala bu gisee dem si àll bi gis lu mu xamul lu ko jaaxal mu ne kii rab la rab mooy rawxaan la la la olof yàq tu tudde ko rab hmm. maanaam rawxaan la olof yàq dem ba tudde ko rab waaye amul kenn ku ma mën a signifier rab mooy lan ndax boo demee ci àll bi boo gisee gaynde di ne gaynde la boo gisee bukki di nga ne bukki la boo gisee loo gis di nga kon kon lan mooy rab bu ngelaw amee nga ne ngelaw boo demee si jaan ñi nga ne kon lan mooy rab maa moo tax nit ñi nañ yeewu man man li ma bëgg mooy ñi may déglu ñu may seetaan wax leen lu leer seen bopp yi ba noppi képp ku may jëflante nga jëflante ak man waaye rab moom man sëñ Saliou Mané amul teg sëriñ bu ko weddi woo <laughs> point baar la ñuy def foofu dugg ci li nga xamante ne nii mooy réew mi ak actualité bi ko ñeel dëggantaan mooy euh, sëñ mu safaa Sy sëñ bi yaakaar naa seetaan nga gàmm gi yëg gis nga ay kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci li nga xamante ne nii mooy sénégalais yi ko doon wax naan dafa déposé candidature moom neena loolu amul te nee saa yu jotee rek dina ci wax sëriñ bu fekkee dafa dem ba nga xamante ne dafa déposé candidature est-ce que loolu waree fam la moom sëñ Moustapha Sy waaw xam nga ñun ay dongo lañ te ay doomi daara lañ te tamit ay nit daara lañ te suñu sëñ Moustapha eh, suñu waajur la maanaam ku dee ak sa bàmmeel suñu suñu Moustapha suñu waajur la suñu baay la suñu maam la benn ñaareel ba mooy suñu royukaay la waaw man dama koy roy ci lu bare bare bare bare si ndax ñett maanaam borom xam-xam dañ ne kilifa du lamb kilifa. du bëri wax. kilifa. Euh, koo gis wekk te ñett yëpp mu ngi sa mi ngi sëñ Moustapha Sy kilifa day am xam-xam te ñett ñeent ñett yëpp mi ngi si sëñ Moustapha ñaareel ba mooy nit la waaw ñetteel ba mooy li nga xam nag ñun xale yëpp war nañ ko royee mooy fitam ak ak njàmbaar ak jomam képp kuy xale nekk doomi daara tey war ngaa roy sëñ Moustapha Sy fitam ak njàmbaaram ak jomam ndax bu ko neexoon nag sëriñ laa Seydi Alaaji Malick mooy sama maam toog def na ñëpp laaj àddee waaye defu ko bu wax jotee dina wax ak nit ñi te képp ko wax dañ koy dañ koy déglu bu waxee dañ koy déglu salaamaaleykum heure bu ko waxee dañ koy déglu kon kooka euh, ndaw lu nekk war ngaa roy si moom. te man mii tey su ma doon joxe Sénégal jamono jii ñu tegal ma ñu fi nekk ñëpp ak suñu sois yi sama njaboot ak ñëpp suñu sois yi la ñu àndal ndax. doy nañu te du lekk alal alalu askan wi ndax jaar na daara. moom ci président ngay wax yow. maanaam tey bu deewoon bu deewoon ba ne damay laaj président bi ñu doomi daara yëpp dañuy dem jàppale ko ah doomi daara la jàng na am na xam-xam bi niveau bi gars yi àgg àgg na fa. président du loolu de sëñ bi. ñaareel ba mooy maanaam bëgg na Sénégal ndax sëñ Moustapha Sy ay morom rek ñooy dem du ma ne ay morom sax ndax moom li ko suñ ji suñ borom defal dafa jéggi loola maanaam ñi nga xam ne dañ leen tudd tudd seen i maam wala ñu tudd seen baam seen i baay wala seen baay bokk ñoom rek ñoo fi nekk di def yenn yi moom nag dafa jël lépp jox ko askanu Sénégal sëñ Moustapha yi amul lenn lu mu wax ne lu mu ne man la wala wala man wala man man la wala defal nañ ma ko lépp lu am li ko maam jox bàyyi lay dundee kon bépp ndaw ak képp ku kilifa dina war ngaa roy si moom. bu nag mbirum mi nga xam ne euh, côté côté boobu nag ko ma koy wax côté en tant que euh, doomam sëtam soppeem taalibeem ndax ñun képp koo xam ne féete nga ñun waajur rek sab dong lañ ah, dama ko wax en tant que foofu kon na ko ñëpp ñaanal suñ borom guddal fanam te ku bëgg Sëñ Tuubaa la tamit suñu sois yi ku bëgg Sëñ Tuubaa loolu moom lu ko waaye bañ bañ bañ bañ nangul ko loola. te li ma wax moom xam na ko bu baax a baax ñi ko jege xam nañ ko bu baax a baax kon liñ koy ñaanal mooy suñu borom bàyyam bàyyam bu baax ma muy Seex Ahmad Tijaan lépp lu nekkoon ci maam Seex Ahmad Tijaan mu mag ma. lépp lu nekkoon ci baayam Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane suñ borom defal ko ko muy ak feex ci moom te yokk ay fanam ba mu raw ay maamam ak i maamaatam te te defal ko tawféex gu wér ak gu wér loolu daal lañ koy ñaanal di ko ñaan ci barke bi yàlla ak alxuraan. mais li nga wax say kàddu noonu man dama ci rebondir rek parce que jàpp naa ni même bu fekkoon da koo bëggoon doon tamit du ko du ko mën a doon. ak loolu ci jàpp parce que nag Macky Sall taxaw na taxawaay boo xamante ne nii moom wax na ko sax si ay biir kàddoom ci gàmm gi. nee na ay fetal ak ay lacrymogène doon nañ ko préparer pour jëmale ko ci tàntam jëfin gu mel noonu nga yaakaar ni sëñ Moustapha ji dina si war a mën a génn fii ak 2020. di wax ak yow mii rek am na loo xam ne bu ko état bi di def dama ko yëg. yàlla xam na ko ay nit ñooy ñëw ak si état wax ma ko. comme lan loolu. lu bëree bëri rawatina nag ma ma ma suma ak sëñ Moustapha si. Hmm. sëñ Moustapha si lépp lu état bi def am na loo xam ne da koy bañ a wax muy yàqu. Hmm. waaye sëñ Moustapha si li lépp bu ko waxoon musiba am yàlla xam na ko. sëñ Moussa Sy li ñu ay kilifa ñoo koy napp. am na loo xamal état bi lu bari. bon dama ne la sëñ Moussa Sy kilifa ay kilifa yu mag ñoo koy napp sax muy bañ wax yenn yi. waaye sëñ Moussa lim xam dëgg bu ko waxoon Sénégal tàkk. wallaahi barka alxuraan lim xam dëgg bu ko waxoon Sénégal tàkk. te gis nga gaa yi li ñuy wax nii. sëñ Moussa Sy bu dara. ah na ko gaa yi laal nga xol alhamdulilah Ousmane Sonko dafa mel ni dafa nekk ci bët guddi yu bët setagul parce que nag élection yi ñu ngi fa jëm waaye nag bokkam moom daan nga wax sax si ay waxam waaye nag instant bi xel tey na dëggantaan ci moom parce que liste électorale yi nga xamante ni nii parrainage yi génnagum moom dañ koo rejeté bosam rejeté ñu baree baree bari sa xel jox na la ni Ousmane Sonko mën na bokk ci élection 2024. Ousmane Sonko la ma waxoon démb laay wax tey lay wax suba laay wax ginnaaw suba. Ah. élection yi 2024 yi Ousmane Sonko du si bokk la la daan wax. te vidéo yaa ngi fi. du si bokk du si bokk. na lu doy waar loo xam ne mi ngi ñëw. te élection yi loxo dina dem gémmiñ mais daal xam ne candidat yi ñuy wax yëpp kenn si toog président ñi ki si toog xam nga gars yi sax di wax guñ tëram bàyyiwuñ sax xel ci ko Idrissa Seck. Idrissa Seck moom ay maanaam ah, suñ borom de moom moo ne tabaaraka la si biir des mulku wa ala kulli say ba aaya ba jeex lépp si nguur la koy wax kon dafay xajut te ba ba saaroo jeex lépp si nguur la koy wax dafay xajul waaw ko toj toj carrément. guy Marius suñ borom moo ne. ak nguur maa koy rof ku ma neex maa koy rocc ku ma neex te looy rocc looy rof ak rocc nag ba nga koy rof kenn yëgul ba nga koy rocc kenn du yëg te boo bëggee dégg dëgg nguuru Macky Sall jeex na xanaa ñu am sëriñ dëgg dëgg dëgg wallaahi. jeex na waaye Amadou baa ngi fi nag taxaw. maanaam Macky Sall bu dee suñ borom suñ borom rek mooy fale. Macky Sall suñu borom rek mooy fale te suñ borom rek moo yor nguur waaye nit ku nekk am na loolu sañ am na loolu am na borom may. te liy falaat mag liy falaat parti bi Macky Sall bokk li ma wax day leer. alxuraan laa téye. Ah. wallaahi alxuraan laa téye nii man dama koy waat. liy falaat mag nguuru Macky Sall. nguuru Macky Sall. Macky Sall xam na bu baax a baax a baax. Hmm. ndax jaaroon na fa ak sama baay te man te am na te ñi am am na am na loo xam kenn du ko wax daal. Ah, ah, am na loo kenn nga wax nag ñu mën a xam. da koy fal dëgg su ko bëggee. wallaahi danañ ma seet si. barke sëñ Tuubaa Sénégal gii senegal gii. 2024 bii. wallaahi alxuraan laa ko waat ku bëgg a fal di nga ma seet si. ku bëgg a fal di kenn ku bëgg a fal di ñëpp laay waxal. wallaahi laa tiim te wallaahi wallaahi alxuraan la tiim dama koy waat ku bëgg falu di ma seet si ku bëgg falu dina la seet si sëñ bi dañuy teg foofu noonu rek mën na jàll ci leneen parce que nag lu bari nee nga doo ko wax dañ la koy nangul làmb ji Modou Lo Ama Baldé ñu ngi leen di dëgmal ñu ngi ciy jëm saa su ne dañuy gis mu yàqu mystique nag dafa bari ci ñoom ñaar ñëpp yow jàppoon ni mystique moo waral ñoom ñaar seen mystique dafa tolloo ba nga xamante ne nii heure bu ñu waree daje rek daje ba du lamb ji daan gi moom leer na ma nañ nañ nañ. kii daan Modou Lo Ama Baldé. leer na ma na ñi ma leeree ni ma leeree bu ma leeroon tey tey tey sama sama sama diggante suñu borom. sama maanaam mbirum lamb ñi ma leeree nii. diggante mu Lo ak Ama Baldé. am na loo xam moo ko leeraloon tey tey tey. lépp ma bàyyi ko. ba wallaahi. te naa la si jox ay indices yu doy waar. maanaam ka xam ne moo war a daan. waaye daanin daanin bu soof lay doon. daani nus soof te bu gën a jege naa la wax nañ koy daane fu koy daane ak kay daan bu desee ñaari fan ñëwal ma wax la kii daan ak nu mu koy daanee te maa la ko dig danañ ñëwaat waaw bu desee ñaari fan yàlla xam ne danaa la wax koy koy daan ak nu mu koy daanee ak làmb ñaata temps lay jël ndax làmb wala làmb ji dina am wala du am waaw maa la ko permettre ndax am na ñoo xam ne daan na ñëw ci man di ma bu laa mosaan am daan na ñëw ci man di di wax dañoo ne ba si biir nag am nañu indi léegi nag man mi daal doon wax ñu ñuy wax léegi man maay wax man sama jëm bopp macha allah foofu la ñuy tënkee li nga xamante ne nii nag mooy waxtaan bi nag parce que nag point final bi dafa jot kàddu gu ma jigi sëñ bi lan lay doon di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh macha allah borom jamono la woon Serigne Saliou Mbacke moom lañ dalaloon fii nga xamante ne ni tey yaakaar naa jotaay bi ñuy sekk nii du lu bees yàgg nañ ko di ko amal borom xam-xam la borom baatin te lu mu wax rek taq téere combat bi dinañ fi ñëwaat bu desee deux jours mu leeralal ñu jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal.